loolu lay jëm nag bu daanu man maa daan mm-hmm. parce que xam-xam ñoo bokkul. xam-xam nag mujj muy bés sama los pour sama sama los laa suuf. mais bu mu la waree ndomb nan nga def. non man loolu sax man man man ma ngëm ne naa daan si àdduna man ku ma naa daan si àdduna laa ma wér sama àdduna. kay billaahi wallaahi man Balla Gaye de bu mu la waree ndomb. damaa takk sama bët nii barke ma entraînement takk sama bët. waaw ñu bëri nit ñi leen daan barke afran yàlla gaa damay wax. man ku ma naa daan si laa ma wér sama àdduna mais lépp yàlla si borom la kenn su ma. Balla Gaye wër na loolu. wër ma ndomba jéem lu ne. jéem lu ne. mën na si mën dara. léegi ma ko bàyyi bi sama tànk bu jëm maa busulu. waaw ma daw ma daw daw wëq wa tànk wa wër ko ba jaaraat si xataan ba. jiital kay. wër ma téye loxo bi fii. jël sama loxo fii. waaw ba si sama fii fii lay def kala ba doo laa ko mu tëdd. Balla daa ñu ko teg ans bi gars yi bañ. waaw dëgg la. ma jël loxo bi fii. fii laa téye fii. jël sama dugal ko si bu xataan ba mu tëdd mu dëpp laamuñu kese moo laal suuf laamuñu kese moo laal suuf laamuñu kese moo laal suuf sikkin bi ak a laal suuf maa ngi moom nag tension woo ma daanu mais xam nga ne combat boobu tension rek la mu muy jeex mais ma parce que xamoo tax man Balla Gaye mi ma ko di wax man leen Balla Gaye ndaana la demee xam naa maa ko xam naa ni kii maa ko man xaw ma na mais maa ko man est waaju baax Babacar Seck man dama gëj gis mais grand jantal grand dama lay jantal grand day tëgg nootu te loolaa toll si nit. dëgg la ndeysaan. nga làmb ji. nga gën a yàq. waaw gars yi ñuy tëgg duñ nootu. dëgg la loolu moo yàq làmb moo tax mbër yi bëri na champion mais da day tëgg nootu nii. kon ñu bëri na champion. dëgg la parce que Mouhamed. man lu ma gën a rey si àdduna mooy làmb man producteur yi ma gën a rey. Victor boobu lu mu defoon si yow jamono jooju. parce que Mouhamed xam nga dox si man dara. Ah. xam naa ne maa ko mën moo tax man ah ñu bëri xam naa ki dama koy daal. man xam nga yéen a xam def naa dara man man dama nekk roi des arènes. waaw xam naa ne def naa dara mais fekk nag mooy roi des arènes ah. loolu mooy mën a bëgg loolu dugg si lamb mais ku ma daan si lamb dama naa war naa laa a daan moom. dëgg la nga jóg jour boobu waaw ñëpp màbb. mais ma koy daan xam naa maa ma quoi maanaam. Ah. xam nga la bettul. du ah. la bett ma loolu. donc ah. deuxième combat maa ko man sama diggante yàlla. deuxième combat lu ma rey man sama ngembal dañ rek moo ma rey. waaw waaw oh, si ngembal dañ ma daan. dama la ndax man jàppati ni amu ko ma daan mi jàppati nii rek. waaw mënta ne. foofu la sa carrière commencé. wàcc mais sant yàlla. dëgg la xam nga tax yàllaa fi ne dix huit ans la dix huit ans dix huit. waaw six défaites. waaw ah. xam nga wàccuwul de gars yi ñoo ma wàccee waaye wàccuwuma. te yàlla ma yëgal nit mhm. ndax man ñu ma ëpp defet ñoo si làmb ji ñu ngi leen di soog a fay million. loolu duñ ci wax. six défaites làmb six défaites six ah. yi ñu amee ay onze défaites ñu dix défaites. Mhm. ñi Balla ma defe laa ko fële Balla Gaye am na cinq défaites moom six. te dégg ngaa bëre. làmb ji yoon. Mhm. waaye yàlla fi ne man deux wàll laa gëm. bëre ak liggéey. soo bëree baax na soo bëree damay liggéey loolu a gëm. mais ñoo ngi ñoo ngi lay séntu États-Unis yi loolu yaa ngi koy waajal. ñu baax. soobu yàlla dama préparé ji. su eh, ñu eh, ñëwaatee ñu xam lépp dëggal. Issa xam ne boo duggee États-Unis ba ñëw gars man gars yi maa ngi man maa ngi maa a invité. non dégg ma la waaw dégg ma la man ma ne moo gën moo la invité États-Unis. waaw non dégg ma la mm. dama na pour préparer bi entraîné waaw dama ko waaw mais yow da lay ñaanal yàlla yow nit ku baax nga rek yàgg yàgg si làmb ko defar da ngay def waaw kii maanaam journaliste bi da war a roy si moom comme comme dégg micro loolu taxaw di nga ko wuyu parce que ñëpp la yamale am kii par rapport loolu kenn déggu si dara bi bi mu leen de sa caare sur mer loolu lu mu defoon si yow waaw parce que dama ko liggéey moo tax man dëgg man dama daan ngem su ma xasee ma teg ngem dama naan waaj ma ngeen a jug te du ma jàpp jeex ma kii jasit rek la mu tuddee ko lay kaymaa. voilà mu ngoog mu ngoog. mais daal ñun daal ñu ngi si entraînement di gërëm sama grand frère Ama Sène. Mm. ak sama waa kër yëpp. Mm. ak sama famille. Mm. Babacar Alaaji sama rakk Baara Sabra ñi may jàppale ñëpp ak Ife Thiaré yëpp. képp ku may jàppale maa ngi leen gërëm te Père Modou Khoule ak Baye Dieng sama gaayen yaa ngi dégg ñi may jàppale ñëpp maa ngi leen gërëm. ki leen jum waaw. merci Issa ñi wax ne dañ la yàq musiquement Issa lan ngay tontu si loolu. non yàq ñoom maa ngi sant yàlla bu baax de. xam nga yàq amul fa ma man li ñu liñ gëm laa gëmul waaw hmm. ah, man ñoo na bëri xanaa da leen yàqoon ñu leen daan xanaa da leen yàqale Sénégal dañ bàyyi ko daan ñu laa yàq xanaa ñëpp a yàqut ah. <laughs> dégg nga nga no fekk daan na ah. maa yàqal loolu xanaa ñëpp a yàqut dëgg la man dama gëm yàlla xam ne lu ñu am yàlla la mu si noppal quoi man lu am yàlla laa koy gëm walaay agib kon fas yéene woo bàyyi lamb yaa ngi ci affaire yi ba tey sama bàyyi lamb xanaa ñu ñëpp ay bàyyi lamb ko waa lamb ji hmm. sama bàyyi lamb xanaa waxee baal gi daa war a bàyyi lamb ama si daa war a bàyyi lamb hmm. ah Gris Bordeaux daa war a bàyyi lamb boo mu jë waa ñu man man man man may xale bu ndaw ni ñoom léegi bàyyi laam fan pour la may bàyyi laam laa bëgg a xam nga wax ma ko doo mm-hmm. xamee nga wax ma ko mm-hmm. léegi yan mbër nga war a nga war a mën a bëreel jamono ji ngay laaj lamba ji kaw bu suuf ku ne mën war a ku waaw waaw yi gi ni ma maa moom dañoo may rawaas yi gi ni junior war naa xam la may rawaas waaw Yékini Junior waaw amul combat nañoo mekk sa promoteur yi ñu ngi dox ci làmb jooju waaw da nga mën man promoteur ñu combat mais combat boobu laa bëgg man kooku nañoo mekk revanche d'accord waaw d'accord sa doom day di Reug Reug war a bëri ak ki nga xamante ni moom mooy Sa Thiès. waaw lamb jooju lan nga ñu fi wax. waa li ci def mooy li nga ñaanal yàlla ñi bëre yàlla may ndam Reug Reug ndam rëy daal la ñuy ñaan yàlla. Mhm. te loolu bëgg ay jaam la ñuy ñaan yàlla ñun daal loolu bëgg yàlla def ko incha mhm. waaw Reug Reug xarab yaru la muy entraînement am caare gépp ak ngi lay jaajëfal di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokk internet yi saa. waaw jaajëf di nuyu àdduna bépp di yi nekk ci bitim réew ñëpp. Mhm. dina yàlla yàlla dafa jàmm gis na leen si ay gis na leen si musiba leen uti yàlla dafa lañ amaat ñu di fekk jàmm hmm. delluwaat maa ngi ko ñaanal yàlla yàlla mel ñu amul kayit yàlla mel leen kayit immigré dafa métti hmm. man dama foog immigré parce que dafa mu yombul ay gur yàlla dëgg nañ hmm. kon yàlla na yàlla jàppale mu si si ket ak laam ak ak lu bon jërëjëf jërëjëf